jërëjëf mbokk yi seetaan déglu lii mooy savon gommage boo xam ni dafay gome lépp loo xam ni dafa doon tache boo xam ni dafa nekk ci kanam wala picc acné wala yeneen yoo xam ni daanaka nit ki daf ko utiliser diwoo ko mu yàq kanamam wala mu naan dara wala mu utiliser lenn loo xam ni daanaka daf ko doon diwoo donc mu allergie ko ñu ni la savon gommage boo xam ni da nga koy sëlmu deux fois par jour le matin ak le soir kon savon gommage moom ngay seen noonu moo baax ci picc acné mu baax ci ay picc yi ngeen seen ak ay yoo xam ne yàgg na lool ci nit ki ci kanam te tâche ci lenn warul ko lu dul loo xam ne nit ki daf ko utiliser wala huile wala crème wala savon wala loo xam ne daal da ko utiliser donc mu ay njeexital ci daram kon yow mi seetaan ak déglu donc euh, yëf yaa ngoog mën nga daal di woy ànd ak ñun nga daal di ko mën a am ci anam yu seltu wóor savon de visage la boo xam ne day nettoyer mën nga utiliser le matin ak le soir gis ngeen picc yi nekk ci kanam moo xam ci aile bi ak ay taches noires kon boo ko itteewoo mën ngaa woote 77 244 90 05 su dee yaa ngi Touba am na Mboro Louga Thiès ak fenn.